الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهدني لي أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi alladi jaalana xayra ummatin oxrijat linnaas wasalaatu wasalaamu ala nabiyi lhuda warrahma sayidina muhammad wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi ihsanin ila yawmi din bismillahi rahmaani rahim barke cheikhul xadim jërëjëf sëriñ tuuba est-ce que sëriñ tuuba ci sëriñ tuuba borom tuuba moroomantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki waa réewum Sénégal gi yépp fooy mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew noo ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw loolu kenn ku ci nekk noo ngi lay baalu àq ngir jëmm yàlla yonent bi Cheikhul Khadim kenn ku ci nekk it noo ngi lay baalu àq di sant ñépp ci topp gi ak déglu gi ak jariñoo gi yàlla nañ ko suñ borom nangul di ñaanal ñépp bàyyiwun kenn di sàkku ci ñépp ñaan di sant yàlla suñ borom ci xéewal yu bari yi mu defal mu dem ba mel ni yàlla danoo defalul dara te lu nu dal noo ko teg suñu bopp ngir ñàkk jëfandikoo xewal yooyu ci nañ ko war a jëfandikoo ñàkk koo séddale ci niñ ko war a séddalee rax ca dolli nag ñu wàcc fi digali suñu borom yi ba tax suñu borom wax li mu wax ci alquran ni dinaa leen nattu ci ak ñàkk ci li ngeen di jëfandikoo ak i feebar ak yeneen ak yeneen loolu yépp li koy waral mooy wàcc yoon wi rek moo koy waral duñ wax nag ni yàlla na nu yàlla dimbali nu tege ci yoon wi dana war a am passif fu tege ci yoon wi bu bo ba noppi rek soogu ñaan ndax yàlla moom mi ngi dégg kon noo ngi sant yàlla ci xéwal yi mu defal yépp bi ci gën a ëpp ci njariñ nag ci ñu sukk jéblu jox suñu bopp Serigne Touba ñépp mooy boole gi nu yàlla boole Serigne Touba loolu wax naa ko ba tey ni noonu képp ku ma dëgg ci yow xam nga ko fii ëllëg nag moom du jara werante ndax ci kanam ñëpp lay doon dana leer nañ kon noo ngi sant yàlla ci xewal yépp di ko gën a sant ci boole gi nu boole sëriñ bi di ñaan yàlla nag ci tawféexam ak lu ko neex lay def mu boole ci yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha tawféexal ko may ko fan gudd ak wér ba li nekk ci xolam mu yéene ko ak cim xelam bëgg koo liggéeyal sëriñ Touba Touba ci bu islam bii sunu borom jàppandal ko nu ànd ko moom te day ci ngërëmul Serigne bi. ginnaaw loolu tey nu dikk ak yéen ci jataay bi nga xam ne noonu ko duppee albayaan mooy leeral albayaan baatu arab la waaye noo jël émission bi wala waxtaan wi tuddi ko noonu muy am ci Saxum tuuba seetu murit yi ñu di ko jàllale ci kanalu youtube bi muy sàqum Touba seetu murit yi di ñaan yàlla rek li nu animé nekk ci suñu xol ak suñu xel te yàlla xam ko yàllante woon ñëpp xam ko waaye yàlla xam na ko mooy képp koo xam ne sa bopp jëm na kow sa tànk jëm suuf nga jariñu àdduna ak àllaaxira loolu suñu borom lañ koy seereel yonent bi ak Serigne Touba loolu moo waral lii lépp tey nag am na loo xam ni du ma deñ mukk di ko baamtu ndax nun yonent bi mooy suñu royukaay te Sëriñ Tuba moom la ñu joxoñ lu tax ndax yàlla moom la joxoñ bindeef yépp Sëriñ Tuba nag mel ci noo xam ne amu ci sago ci moom kon lu mu wax lu ne sunna la lu mu jëf lu ne sunna la te sunna soosu mooy tekki alxuraan rek alxuraan lay leeral te wax na nag ku gis loo xam dañ koo sib wala lu jaaduwul wu tegu ci yoon nanga jóg jël aw yat mbaa jaasi faj ko ci sa loxo soo ko mënul wax ko ci saw làmmiñ ba nit ñi dégg ko ndax am ñu am jom ñu am ngor mën a jógandoo àndandoo xeex loola mu jeex ci saw làmmiñ nit ñi dégg ko soo ko mënul naqarlu ko ci sa xol lu nag egguñ ci naqarlu ci xol rek yam ci déedéet dañuy jéem kay faj ko ci loxo ak faj ko ci euh, faj ko ci làmmiñ faj gi ci loxo nag dinaa ko leeral léegi ci kanam dina dikk albayaan tey nag li ko tax dikk mooy Sénégal toll foo xam ni bu ngeen ma dee topp ci ginnaaw waxoon naa leen am na lu ñuy bëgg a yóbbu assemblée mbir mu doy waar boo xam ni histoire dina ko bind na ñëpp déglu du xool ba xam député yi ñu fa yebal fal leen te peuple bi fal leen lu luñ ciy def. muy ñu bëgg ab loi boo xam ni dañ koy tëral ni képp ku gis ngay def mbirum góor jigéen muy amalu luut dañ koy criminaliser dañ lay tëj daan la dañ lay tëj fasaase ba noppi daan la teg lay daan loolu am na yeneen yu bokkut loolu rek yoo xam ne yu sew sewaan yu nekk ci suuf yoo xam ni dafa bokk ci programme LGTB+ dafa bokk ci seen programme ñoom ñi bëgg mbirum góor jigéen taxaw ci àdduna dafa am yeneen yu ñu ca boole yu bokkut ak góor gu sëy góor rek yooyu nag moom la waajale nit ki ba mu mën a egg ci nu bëgg a mel rek mu mel jigéen ju sëy jigéen góor guy sëy góor góor guy sëy bayim yooyu yëpp la ànd sàmm jikko yi dajale ay at di ci dox di ci wax di ci dox di ci wax ba yóbbu loi bi du ma ci dellu si dee ngeen coow lu ci am lépp ñu ni lànk nañ ko nee nañ duñ ko wote wala boog lay nañu nee nañ duñ ko wote luñ ko layale mooy am na loi bu fi am boo xam ni li nu bëgg defal nañu ko ba noppi mooy ab loi bi fi boo xam ne képp ku ñu gis ngay def acte contre nature maanaam góor guy ànd ak góor suñ ko gisee loi ngi fi boo xam ne day dal seen kaw xam nga loolu bu doon loo rekk la te muy lu wér ceng lu leer. kon coono yëpp du ci fekk kenn waaye nag entre parenthèse am te kon dogal nañ ko la ñàkk nañ ko dogal ab loi ngi fi boo xam ne lo boo xam ne moom gone yee ko yor dama wér ci biir Sénégal lu place ruqe ruqe ruqe góor gu ñu fi gis ba gone yee gis la ak mag ñi sax ngay def lu mel noonu balaa police ñëw wala gendarmerie yaakaar naa ni sànq suul doo nga cay mujj kon dafa mel ni loi bi sax bi fekkee ne waa ànd sàmm jikko yi bi ñu jógee di ko wut. loolu loolu loolu am na loo xam ni protection la waxuma la jëlal naa jëlale naa ni yàlla moo ko jëkk a daganal moo ko jëkk a aramal jëlale naa loolu dinaa ci dikk beneen émission bu leer nañ ci ñuy wax naan diine lii li ci ci ñenn ñi yi loolu beneen mbir la dinaa ci ñëw bala yàgg léegi ngeen topp ko waaye li nga xam ne moom lañu def tey bu amoon kon kuñ ci jàpp fekk la ngay def loolu dañ lay jébbal yoon booba sax xëy na mooy gën a sedd waaye nag bu loolu amul. képp ku gone yi gis nga di ko def wala koñ bu ñu gisee nit di ko def ci Sénégal li ma wér mooy takk der rek ku mu mën a doon balaa nit ñaa ñëw dañ la rey moom loolu mën naa ko firndeel président moo wax ci télévision ñu dégg ko mu ni diggante góor jigéen ñi ak gouvernement bi duñ séq benn problème gouvernement du leen def dara ndaw sa ko waaw du du def mu ko waaw xanaa seen digg ak bi nit ñi rek mënuma ci ñoom dara loolu mooy kon. gouvernement bi moom du leen tëj du leen jàpp waaye fu ñu ko defee peuple Sénégal moom ku ñu ci gis dana ren moom moo ko ci wax ñëpp di ko bànd baa ngi fi ñëpp di ko dégg am te kon wax ko it noonu lay deme ndax nit ñi moom kuñ ci gis ka di ko def naa koñ bu mën a doon roq bu ma bis bu la bis bu nit ñi gisee lu nit ñi gaaw gaaw gaaw du baax ci yow léegi nag ma dikk ci li nga xam ne moom laa bëgg a leeral am na ay benn benn nit. yoo xam ni comme président groupe parlementaire bu APR ay maire ñu ngi lim ko layale nee na loi boobu jëru ko ndax am na loi bu fi nekk bu mel noonu ba pare kon du jar ñuy yóbbu ko assemblée di ko wote man am na lu ma ci jàngat mooy lay woowu mu lay mënees na cee jàngate ni bëgguñu dem ñoom waa assemblée di ko wote di jox Macky aw gangal maanaam aw xal ci loxoom ndax bu ko assemblée wote woon ba noppi bala ñu ko mën a daganal muy dox ñu tëral ko il faut Macky Sall dina ko signé promulgué ko ak lu ko assemblée wote wote wote dina dellu ci moom mu daganal ko bu ko daganul du sotti léegi nag bëgg nañ koo dawal loola man na am na sax ay député nga fa yoo xam ne am nañ bëgg gi waaye ñi nga xam ne bëgguñu mu dem ci loxoom ndax bu ko assemblée wote woon tey ba noppi demee ci président bi. di di wér ni li ëpp ci li yaakaar booy duñ ko wote du ko promulgué loolu nag bëggaluñ ko président bi bañ léegi ñu wote ko ba nag mu dem ci moom mu war ci signé waat ñu di ko indili problème loolu mënees na ko jàngat bu wér wér a wér beneen bi topp nee na ay politiciens ñoo ko ñoo dox loi bi di ko yóbbu assemblée am na ngóor su sant Touré su ma dégg ju du wax doon wax ci benn débat ba li ko jaaxal mooy su ay élection jub see rek ñu agité yu mel noonu di ci wax bon ñooñu sax du ñu jaar déglu mais dinaa leer foofu tuuti sëriñ Alassane Sané dina ma indil benn élément bu gàtt am naa ko ci yu baree bari mënoon naa ko ba indi waaye dinaa ko indi élément bi mooy këyit wi sëriñ Mountakha signé ci loxoom bind ci boole ci wane ni yéen ànd na ma ak yéen te maa ngi leen di jàppale te maa ngi yéen a koy ànd. këyit woo xam ne dina ko indi bu soob yàlla kon sëñ Alsaan da nga ko indi. lii ngeen di seen mooy signature sëñ Mbaye Sy Mansour ba noppi dafa bind benn lettre moom xalif général des Tidianes moo nekk nii wane position mu leer naññ ci mbir yi. nga jël aussi xalif général des Mourides muy sëriñ Mountakha signature moo nekk nii mais moom it yamul rek ci loolu dafa bind bataaxal ci combat bi. bii ngeen di seen également mooy bu sëriñ Maay Ñas di xalif général Faydu Tijaaniya bu Medina Baye. mais dafa am beneen signature mooy bu Cheikh Tidiane Niass mi nga xam ni mooy représentant maam Khalifa Niass di wajur bu góor Ahmed xalifa Niass ci kaw suuf ki nga xam ni mooy la voix légale bu Léona Niassène bu amee kenn ku ñu mën a jàpp kàddoom ci njabootu maam Khalifa jëm ji la muy seex di Niass signature am moo nekk nii ngeen seen mais yamul rek ci loolu. bu loolu jàllee mënoon na ma bañ a indi këyit sax man mii di wax ak yéen. ànd sàmm jikko yi léegi la siiw ñëpp nu ànd di ci def collectif la ay kuréel yu baree bootu ci biir du ñetti nit du ñeenti nit maanaam li ngay waxee ni kuréel sàngam kuréel sàngam kuréel murit action nangam nangam ay kuréel yu bari ñoo dajaloo du ñenn nit du ay nit benn nit ay nit yu jiite ay mbooloo la mbooloo mbooloo mbooloo yu bukkul mooy collectif ànd sàmm jikko yi loolu ñoo collectif ay mbooloo yu bari yoo xam ni ñii li lañuy def ñii li ñoo ci ànd waaye bi loolu yëpp dafa xew muy egg fi muy egg man mii di wax ak yéen. su ngeen dajati sëñ Babacar Mbuub laaj leen ko kañ la jëkk gis sëñ Muntaxa wax ak moom ci mbirum góor jigéen ñi laaj leen ko ko yéen journaliste yi wala moom xëy ne dina ko ba a wax bis bi sëñ Muntaxaay soog a toog booba mbirum ànd sàmm jikko yi ñu bari xamaguñ ko bi may ànd ak sëñ Babacar Mbuub ñuy implanté ay cellules ba ci Thiès ci kër sëñ Saliou Touré ñoom kër sëñ Saliou Touré bañ fay implanté cellule booba kenn xamul woon man mii maa leen indi woon ci sëñ Muntaxa bi ñu ñëwee sëñ Babacar Mbow Adama Sarr ma sëñ oustaz Matar Sarr ki ñu wax Karim Xurum Xaax Adama Mbuub ñii ñoo àndoon ñëw an fekk si ma Tuubaa ma ànd ak ñoom ba ci sëñ Muntaxa booba nit ñi sax waxagul ci wax ji mbirum góor jigéen ji lañ ko doon gaaram man maa toog sëñ Muntaxa wax ba dégg ne ànd naa ci ak yéen te dinaa ci jàpp te taxaw leen ci liggéey bi lii maa ko fekkee man maa ko def. kenn laaj leen Ababacar Mbub booba yii yëpp xewagul kon képp kuy taxaw di wax naan Sëriñ Muntaxa siñewul lu waxu ci waxoo dëgg képp ku ni Sëriñ Muntaxa waxu ci walla àndu ci wala siñewu ci waxoo dëgg signature bi dina leen ko woon léegi gis ngeen ko li ci des nag man maa ko dund man man maa ko dund foofu nag laay yem ci côté boobu boo gisee nag yu mel noonu léeg-léeg ci mbirum diine mu xew Sénégal nga gis ñuy tudde ab oustaz wala intellectuel boo xam ne tubaab la jàng dem ci internet bi am lu mu yër wala islamologue boo xam ne lislaam la jàng nit ñëpp dañoo bokkul da cee am ñoo xam ni dañu di islamologue loolu lañ leen di tudde mais ay imposteur lañu ay réeralaat dañuy réeralaate ay manipulateur lañu loolu dafa bari ci Sénégal am na ci oustaz yi am na ci lenn sëriñ si am na ci politiciens yi ba ci société civile am na ci ay manipulateurs ñoo xam dañuy manipuler di jéem a jëmale nit ñi nii di leen jéem a gëm leen gëmloo lii journaliste yi raw noppi nag moom waxi noppi journaliste yi am na ci ay manipulateurs am na ci ñooñu nag bu dara xawee day am ay kuréel yoon di fay xaalis c'est leur gagne ay millions ñooy génn ci médias yi dem ci débat yi daal di ajouter benn question ca la ñuy wax mu mel ni li ñu fi waxoon naan bu ko Sénégal defee. kenn dootu leen financé yooyu yëpp c'est des manipulateurs loolu mooy seen liggéey ñoom léegi nag manipulateurs yooyu am na ñoo xam jàng nañu lislaam ba xam lislaam dëgg dëgg dëgg dëgg mais seen deret moo demee noonu am na ci ñoo xam ne tubaab lañu jàng ba ni ar mais dañoo dem ci internet bi di xool xardaaw yi kashk borom xam-xam yu mag yooyu ci lislaam la ñuy dem di xool loolu yow mi jàng jéem jàng sax comptabilité sax léegi bu la neexee demal ci internet léegi bu sam xel baaxee rek nga am mémoire bu baax rek mën ngaa toog télévision bi commencé di wax di indi ay alxuraan yoo xam ne da nga naan wow si sa waay ndekete xaw ma nii la fekk na internet bii doo nga la dem yër fa loo xam ni fekk ko fa bu ko defee nag yow nga cause nde loolu muy def yow man nga ko yow boo amee jot rek boo sawaree rek mën ngaa dem ci internet bi ay yi mu indi nag yooyu muy wax yooyu yëpp mémoire bu rëy dong su defee nga def di ko ko demoo noonu xel mu rëy la ñooñu nag di ci ëpp ñoom ay manipulateurs lañu waaw c'est leur façon de faire c'est leur gagne-pain waaw ñooñu dañoo trop dañoo dañoo dañu ñu sule ñàkk a wote bi sax ñi ngi wax kilifa yi di naan Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul fi la tëdd Cheikh Sidi Malick fi la tëdd Cheikh Laay ñëpp kilifa yi diine yëpp Cheikh Abdou waa Ndiassane ñëpp ñu mais jëriñu woon lim sëñ bi Lat Joor ak ñamel ni moom di bokkam alburi ña si des nga xam ñëpp waxuma diti niti de waaye ñooñu rek lii bu leen fi fekkoon tey kenn waxatu ko jëru sax di egg ci nit diine yi lu tax parce que c'est la république de valeur booba booba booba réew mi ay valeur yi koy guider ci anam yu mel noonu valeur yooyu nag moo nekkoon ci seen deret di daw Sénégal nag bu ñu waxee ni gër mi am na man gëm naa ko maanaam bokk ci yax bu rëy wala gër mi gëm naa ko parce que am na loo xam ni képp ku bokk ci yenn askan yi sa deret du ko nangu yaa xam assemblée nga nekk yaa xam ci ministre nga yaa xam loo mën a doon sa koy bañ nit nag mën naa bokk ci askan woo xam ne askan wu rëy la mais day rax loolu am na ci kër sëriñ si am ci kër ceddu yi am fu ne am na jëf yoo xam ne léeg-léeg gis koo def rek ndeyam mën naa nekkoon koo xam ne dafa sëtoo ci buur sax wala bàyyam sax waaye diggante bi dafa rax fañ ko jëlee moom dafa rax du sang pur lii ñàkk koo wote gàcceel Sénégal la waxuma la nag ñu naan duñ ko wote déedéet député yi nekkuñu fi ñu nit ñi maanaam dañ leen a di leen woteloo du ñoom ñoom moom nit ñi maanaam yéen dañ leen a fay rek di leen fay xaalis di leen woteloo kon lépp luy intérêt du peuple wuri duñ caa waaye képp ku koy jéem gàllankoor nag wala nga bañ ko wote nag na la leer ni li ma wax rek. am na yu baree bari yuñ ci mën a jële jàngate ko ci loolu garmi piir du ko da koy wote as da koy wote bu ma nee garmi nag mooy ku am ay valeur koo xam ne ay valeur am moom dafa set ci lépp juddu ba ak lépp da caa set kooku am na loo xam ne da koy rus bañ nit mën naa jël aw sant rek wala bu mel neen rek wala bokk fenn rek waaye boo ko toppee juróom mën ngaa topp juróom-ñaari maam ya il faut am rax ca biir que am na yoo xam ne as gor ko as du ko def lu toll ni am réew ñëpp bokk ko diine lislaam nekk fi ñeneen ñi ay croyant ñoom ñëpp am lu ñu gëm ñëpp ni déet fu ñu jaar fa daj leen daj lépp ñu bëgg a taxaw ni déedéet duñ ko def te am na fi yeneen loi yoo xam ni changé nañ ko 1960 la woon loi bi ñu wax 60 lu tax dañ koo changé am na fi loi bis bu ne nga dégg nga loi sàngam changé nañ ko changé nañ ko. kon yooyu ay tappale la nit ñi nag man ñoo nax ñi nga xam ne jànguñu wala yeewuñu mais du ñëpp la ñu nax waaw bu ñu ko waxee ba nit ñi doon toog seen saal xool la ba ci ñu sëgg xam ne kii daal du du du dara waaw kon loolu dañ ci bàyyi xel leneen li ci des mooy dama noonu nañ ko faj ci loxo xam nga yonent bi nee la soo gisee lu jaadul jógal faj ko ci loxo boo ko mënta faj ci loxo nga faj ko ci làmmiñ naqarlu ko ci xol man ni woon dinañ ko mees na ko faj ci loxo koy fajee ci loxo. groupe parlementaire bi ay miiru ñi ngi moo ko jiite APR mooy APR ñu ëpp doole ci assemblée lu ñu fa yóbbu bu ñu bëggee ñu wote ko bu ñu bañee ñu bañ ko wote ko député sax am na ñoo xam ne wér ma ni mën naa am ci groupe boobu lañ bokk mais amuñu pexe ndax mbir ma jot te egg fañ koy wotee dañ ko teel a kale waaye ku ci bokkul nag war ngaa manifester wu ci presse bi ba ñu xam ne yow mii sa alaaxira moo la gën a sa adduna nga ne man kat ci groupe bi laa bokk waaye bu ñu ko indi woon it ma ko. ngir yow sa digg ak sa yàlla su borom ak sa digg ak ñi nga xam ne ñu ngi lay xool ci Sénégal ak sa njaboot ñi lay déglu ñëpp xam ne député nga kon leneen li mooy ni koy faje ci loxo mooy sanction groupe boobu nga xam ne ñoo taxaw ne du dugg mbirum du am kenn du ko wote ki ko jiite muy groupe parlementaire APR ci système ci régime bi la bokk ni ñu koy faje mooy ay ñi ngi jëm ci ay élection locale ab tàmbali bari na doomu yi bari ñu ko mën a faje élection yi locales yi képp ku di jullit képp kuy croyant képp ku yow sa digg sa borom na la ko jaral parce que boo gisee ñun ñu sonn rek mooy ñi nu sonal ñépp li nu sonal da leen koo jaral te ñun jaraluñ ko bu dee yore nu réew mi lu mu mën a doon ñooñu li li ñuy def da leen koo jaral te ñun jullit ñi jaraluñ ko loolu rek la jëru sax di sori kon yaakaar naa ne képp koo xam ne lii def nañ la ko tey ci assemblée nationale ñu lànk ko wote groupe bi ko jiite nii duñ ko wote muy président ba jiite assemblée ñes ñëpp lépp lu ñuy laajate luy niroog aw carte nañ ko tàmbalee ci local yi croyant yi tàmbalee na ko ci local yi sanctionné bu ñu eggee ci législative moom waxee na ko moom mbirum député moom waxatuñ ko moom bu ñu ci eggee seconde ba la ay présidentiel kon li ñu war a def moom noonu première action bi mooy sanction waaw sanctionné ci local yi sanctionné législative moom foofu moom lépp ngay raafale far benn yoon waaye bii nu jëm rek occasion la pour képp koo xam li ngay wax dëgg la ci yow nga utiliser loolu ñu xam bu baax a baax a baax delloo yàlla njukkal jëlaat sa dignité xam yaay kan foofu mooy sanction bi nga xam ne ci loxo la bi yonent bi wax kooku lo boobu buubu loxo la sanction bu loxo la waaw ginnaaw loolu bokk na ci li nga xam ni waxoon naa ko fi dinaa ko junj léegi mooy motif yi tax nit di wote lan moo tax nit di jël kartam jël dantitéem sonn ci lool fexe ba am ku téye ku denc ko bañ koo sàggane bu bis ba jotee mu wote lan moo tax loolu ay motif yu bari la de day day am yu bari yu ko waral dinaa leen ci leeral tuuti tey lii xew nii bokk na ci am na ñoo xam ne mësuñoo wote wala am na ñoo xam ne am na ñoo naqar tey ci lii assemblée def loo xam ne jaral la leen bis ni ki tey ñuy wote kooku motif culturel la culturel maanaam motif bi saqaafi la diini la li ko motivé mbirum diini moo ko motivé ba tax muy wote ji ngir sanctionné am na ñoo xam ni motif économique économique dana leen tax wote maanaam yorin bon wu ñu yor réew mi ba réew mi kenn amul ñi ci ëpp amuñu luñ sukkandiku ñooñu loolu dana tax ñu wote ji ngir sanctionné mu am motif politique motif politique mooy mu wër leen jàpp nañ ñu téye ko. te kooku waruñu koo jàpp def ko ci kasu bi ngir ëpp ko doole rek ak yor nguur loolu dana tax ñu mu naqari ba tax ñoom ñu wote ji ëllëg contre mu am motif social muy loo xam ni ci dundinu nit ñi niñ ko war a saytoo saytoo wuñ ko noonu ci wàllu wér-gu-yaram ak leneen ak leneen ak leneen loola naqari na leen ñi nga xam nag mu des beneen motif boo xam ne politique la mooy yoreen wu bon mën naa tax nit ki sanctionné kon ay motif yu bari moo tax maanaam ñiy wote ji bul defee da ngay wote rek damaa faral ni déedéet day am lu nit ki ëmb ci xolom lu mu góox même am na motif de priorité am na ñoo xam ne intellectuel yu mag yi jàng looloo tax jàng baax wala boo jàngul ngay déglu ko jàng te di patriote di déglu ku jàng te di patriote mu di la xamal bu ëllëgee soo foo koy jëmee. loolu mooy lan motif de priorité mooy demal jam ñaaju tey stade bu ñu tabax nañ ko cent milliards pour football la Dakar Arena mu nga ci biir jam ñaaju wala bokk stade basket bañ tabax ca jam ñaaj mu jàkkaarloo stade football bi nangam nangam Abdou Diouf xaw ma lan yooyu yëpp boo seetee xaalis bi ñu ci def bu ñu ko jëloon tey def ko ci mbay mi ak liggéeyu xale yi. wala ñu def ko ci xale yi nga xam ne ñi ci mbedd bi di taxawaalu ñenn ñi seen bàyyi joxe ne leen rëcc nañ ñi nga ca goroj ya ñi nga ca nangam nangam kenn xamul fu ñu nekk ay ñoo xam ne juróomi at la fukki at lañ am ñee dawe nañ ca daara ja ñee fàq nañ seen kër boo ko doon calculer Sénégal lu mbon bon di am trois cent mille xale wala cinq cent mille yoo xam ne ñu ngi souffrir fi ñu toll Sénégal wala loolu lijjanti leen bañ tegee ci yoon mën naa am ay savant nekk ca loolu defar leen jàppale leen moo gën wala tabax stade boo xam ne am nga stade amitié loolu am na ñoo xam ne priorité boobu nga xam ne état bi defu ko rek am na ñoo xam ne ci la ñuy xoolee ni ñii cuune lañu ñu la dañoo incompétence sëñ bi nañ bàyyi on dit on parle te da ngay mesurer da ngay nattale injaazaat yi ak salbiyaat yi maanaam infrastructure yi ñu defar yëpp réalisation yi ñu def ci Sénégal yëpp terre beeg trou baag nangam ak pour de Ndayane nag yooyu yëpp da nga xool nga xool boo ko xoolee ba noppi nga nattale ko ak yàqu-yàqu yi am ci réew mi boo ko dee nattale nag naa la tuddal tuuti xam nga man ma tudd terre tuddal ma autoroute à péage tuddal ma Dakar Arena tuggal tuddal tuddal ma fa fa làmb ci nekk tuddal ma tuddal ma tuddal ma yooyu yëpp yooyu yëpp boo ko tuddee nag dangay taxaw tuuti nga xool yeneen yoo xam ni mën nga ko nattaleeg moom ci mbon détournement yi boo ko xoolee yooyu ñuy réaliser nañ ko yëpp nga xool détournement yi ak ya ñuy tudd ni am na lu lëndëm ArcelorMittal Prodac post Lonas nangam yooyu yëpp nu ma ko jeexal soo xoolee yooyu yëpp ci ay njaaxum nga nattalee ko li ñu def ci lu baax détournement yu takk renacé yi ay ay sociétés yu daanu màbb màbbu fi suuf société yoo xam ne màbb nañ waxuma de société nationale lañ waxat gu excès gu ma nag ci ay société ay entreprise privée yoo xam ne seen seen borom fi ñu toll nii xamatuñ fu ñu jëm te ay gor lañ ndax seen entreprise doxatul ñu ni màbb fi suuf nga dem ci tey lu mel ni terre bi ñun la cinquante milliards lañ ci war di fay bor ak it li ñu réaliser nag fu ñu ko jëlee est-ce que dañoo am finesse bu ñu lijjantee xaalis dugal ak génne ba am ko ba def ko ci suñu xaalis déedéet lépp ay bor yu teg ci suñu kaw réalisation yi ngay dégg yépp bor yoo xam ne ay génération ca kanam ñooy ñëw pour fay ko ay bor loolu du mu jàmbaar ay bor rek la lépp wooy architecte woo ingénieur ñu def plan ñu tabax loolu moom yomb na ay milliards la poro Ndaayaan bi li gën a métti ci Sénégal ma jël ci exemple rek Dubai poor World même bu fekkee ñu ko ñu fi jiitu woon ñu ko fi indi ak ku mën a doon rek poro Ndayane bi ñuy wax ñu ni 600 milliards lañu koy defaree Sénégal lan la ci moom bu port bi pare quarante pour cent ñeent fukki yëpp Sénégal ko juróom-benn fukki nag ay étranger koy moom loolu mooy politique bu baax lu teewoon nuy nuy ñog-ñoge noonu di ñog-ñoge di ñog-ñoge wala mu lépp xaalis boog sax moomal ko suñu bopp dara bañ ci dugg muy 100 pour cent sénégalais. mais loo xam ne 68 pour cent saa yu demee bay dox su amee bénéfice 400 milliards ci at mi Sénégal daanaka 300 milliards yi du ko laal loolu mooy loolu mooy loolu mooy loolu mooy vision nga dem ci zircon ba nga dem ci phosphate ba nga dem ci oor ba nga dem ci pétrole ba foo fi dem boo xoolee Sénégal lépp seen seen li ñu am lépp boo ko xoolee lenn lu ci nekk la ca la ca Sénégal di am tuuti lay doon dégg nga li xew Saar bërki démb. fi ñuy fi fi ñu fi fi fi fi ñu fi ñu fi ñu fi ñuy xente pétrole bi saar dégg ko marché de gré à gré ba ñu fa def deux cent milliards ba noppi bëgg a defaraat capital bi pour Sénégal ëpp ëppale ci te booba sax ña ca ëppale ay privé sénégalais lañ loolu yëpp nag nee la mooy lu ñu wax priorité ci loolu nag bu fekkee ni yow da ngay toog yor sa carte xamoo yooyu yëpp il faut nga déglu ñu dina ko leeral véritas bi ñuy wax ñuy contrôler oto yeeg yooyu. Sénégal zéro lu mu ci am péage bi ñuy dugg tey ñett lan la ci Sénégal am péage bi ngeen dégg am réew tey yooyu yëpp bu fekkoon nos nañ ko nos bi ñu ko war a nosee kon gone yi am nañ liggéey bu yàgg école yi dootuñu grève abri provisoire dootu am dispensaire foo tourné mën moom mais déedéet Sénégal bu fekkoon dafa junni milliards mooy alalam ñeenti téeméeri milliards dong la ci moom juróom-benn téeméeri milliards yëpp waa bitim réew ko moom. loolu nag ñàkk vision la ak ñàkk patriotisme rek moo ko waral du leneen waaw loolu rek la kon yaakaar naa ni suñ taxawee tuuti ni ma ko waxoon léegi euh, dafa am loo xam ne bu ñuy wotee nit ñi mi ngi mel ni misaal di ma la vote religieux maanaam li nit ki nga xam ne mbirum diine rek ko ñor moom économie bi yoram néew ca leneen yooyu yëpp yoram néew ca moom diineem ji nga laal rek moo tax mu mer bay wata ji man naa la ko joxe tey ji bisal am na ñaari nit ku ma ko wax benn bis ma di ko am mu ni ma keroog bi président bi Macky Sall bi mu duggee ci jumaa yi Tuubaa sol ay dàllam nee na keroog laa waat ci alxuraan ba léegi di dootu sama carte dootu ko laal benn rek ma jox la ci exemple xam nga koo kon vote culturel culturel la def am keneen koo xam ni sax tukulóor la mu ni ma man li muy doon doon doon mbokk keroog ba mu gisee mu sol aw dàllam dem ca Charlie Hebdo ba léegi laa pare woon ci moom aw quatre minutes koo am ci man kon léegi vote yooyu laa lay wax ni la vote dafa am vote politique vote culturel vote culturel vote sportif sax am na waaw loolu day dugg ci day dugg ci kii rek day dugg ci culture waaw vote économique vote lépp nit ñi nag bokkuñu kenn ku ne dana tax dana ab lu ñi nga xam ne xamuñu dara ñoom ñi nga xam ne saakub ceeb leen tax di wote nag wala vingt-cinq mille francs wala t-shirt ñooñ ñooy ñi nga xam ni ba ci noonu la war di dundee ba ilaa yawmi diin waaw kon loolu ñu bàyyi ci xel bu a baax lii bokk na ci li nga xam ni albayaan indi na ko tey ba ci même wàllu sport président bi du doon communiqué barki démb ndax ñun lépp la ñuy topp bu bu ñu inter lépp ndax lépp def concentré bi bi ñuy tàggoog ñu ñuy tuddee ay Lions football kati sénégalais yi ñuy dem Cameroun équipe nationale. benn waaye ni ma yow discours bi bi mu def ci feer ma ne pour lan man ma war a toog di jàng naaru doy ni ak sama nuuru doy ni ak mu xaddibutu xew nekk fi déglu ab discours di ak di ko jënd analyse dal naa lool dama am koo ko jot <laughs> sax eh, dem war a jàng sama nuuru doy ni may toog di xool discours président moom ko analyse loolu dama am ko jot man waaw bi discours bi ma ni ko dama doon déglu léeg-léeg bu ma dégloo bu ci amee lu ko jar waaye nag du analyser pour analyser rek benn mooy bi muy tàggoo ak équipe nationale lions yi de ñu koy jox ñu leen jox drapeau bi wax na wax joo xam ne ci communication kàddu Sénégal lay waxe Macky sàll nee na leen dem leen ñaan lan man jullit ñi ñaan chrétiens yi ñaan yor bible ñi man leneen ñaan ñii jàmbat ci mbirum bokkaale est-ce que diglu nañ lool maanaam jullit ñi nañ ñaan yeneen croyants yi gëm leneen ñaan muy chrétiens yi ñeneen ñi ñi ñi man ñi ñi ñi ñi ñi xam leneen def leneen loolu mooy la mooy fétiche muy xirim kon léegi boole nañ ñaan yàlla ak ñaan leneen te dem leen ngeen déglu discours bi rek ñett yépp la boole jullit ñeeg chrétien yi ak ñi xam leneen def leneen mooy yéen ñi mën a jël loo xam ne fétiche la ba équipe coupe ñëw def leen ko kon foofu léegi ñaanatuñ yàlla ñi ngi doon ñaan yàlla fee ci ñaar ñee waaye fii moom. ñu yàlla mu neex yàlla mu naqar yàlla lañu ñaan waaw ci la nga di nga di ko communiquer te li li bootu ci sa ginnaaw lépp te quatre-vingt-quinze pour cent ay musulman leneen li ay ay croyants ñoom itam ndax seetlu ngeen loolu ci discours boobu beneen ba ma ci seetluwaat la ma ci jàngat tuuti rek ci discours bi mooy dem leen te ñëw indi coupe bi mais pas avec la manière nu ngeen ko mën a indi rek indi leen ko bu ngeen dee gajjeg bu ngeen dee lu ngeen def rek indi leen ko bu rafet bi soxlawu ko. loolu dafay refléter ni kon mënees naa gouverner itam pas avec la manière mais gouverner gouverner rek nu gouverner baax na nañ gouverner rek loolu lay refléter waaw ndax na nationale yaakaar naa li ci nekk ba ñu leen tànnee kenn ku ci ne say moroom ne fi ñu tànn la ngir sa finesse ak sa technique ñu di la seetaan ci addu bi fu ne nga man lu ne ba ñëpp di la topp yaakaar naa kooku la ko war a wax mooy damaa bëgg nga indi ko kat avec la manière noonu nag ñëpp nañ ñaan rek yàlla nañ ñaan yàlla yem ci nañ ñaan yàlla waaye ñaan yàlla ak ñu man leneen def leneen ñooñu moom ñaanuñu yàlla moom seen pouvoir lañ gëm muy pouvoir satanique amaa nag bu ngeen di indi ko bu leen ko indi ci soxlawuñ lu rafet lu rafet nu mu ñëwee rek baax na loolu de moom yaakaar naa ni dëgg dëgg dëgg ñi yëngu ci wàllu sport moom du doon du doon lu leen gënal damay jàpp loolu bu ñu ko doon def di ko indi itam avec la manière lay doon defin wu rafet wane lu rafet. wane manin woo xam ne ka ngay man da koy man manin rafet waaye loo xam bu ñu ñu naan lii kat tax na moom daal yooyu daal laa ci jàngat ci wàllu googu waaye li ma ci gën a yitteel daal mooy ñaan gim ni nañ ko ñaan ba noppi ñi man leneen def leneen ci réew moo xamante ne bii yaa ngi wax ci seenu làmmiñ te ñuy déglu ñëpp ak ñi ñu mu concerné ñëpp dañuy wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammadu rasulullah di ay croyants yi nekk fi même bu fekkee ci borom diine benn diine lañ bokk kon loolu yaakaar naa ni bu fekkee ne boole nañ ci ñi nga xam ñooy ay at yi nag ba noppi noo ngi ñaan kooku kon boole ñaanatuñu yàlla suñu borom loolu kon shirk lay doon moom kon ñuy wax ci lool nañ nañ nañ nañ seenaat loolu waaw kon dal bëggoon naa tey albayan lii leen indi woon fi may tëjee waxtaan mooy réew mi noo ko bokk nit ñi sonn nañ lool lool lool am na ñoo xam leen sonal mooy jikko yu bon yi ak melokaan yu bon yi ak doxalin yu bon yi bu fekkoon réew mi kenn da koo yiliful amul njiit boobaa kenn du wax kenn dara mais ginnaaw dafa am koo jiite il faut ñu wax kenn dara moo tax gis naa fan yee ñaari taxaw seetlu bu taxaw ci bayaan xaw ku ñuy wax Mary Teuw nekkoon fi ministre de l'enseignement supérieur nekkoon fi recteur déglu naa benn kii bu ñu muy yónnee boo xam ni dama ni kii moom benn rek la ci Sénégal nekk ministre ba jóge fi kër gi nga xam ne amoon nga kër gi sax amatoo ko ndax lan. ci kër gi nga jaay di ci dimbal ay nit ndax na ñëpp sur sur beneen bi ci des mooy jëmm ji may dégg naan Thierno Alassane Sall république de valeurs maanaam day am ñoo xam ne dañuy def histoire da koy bind ba faaw nekk ci digg ci gouvernement dara manqué wu la nga nekk ministre ak ministre bi nga nekkoon nga xam ne lu ne nga ci xaalis nga mën a taxaw démissionné loolu dëgg dëgg dëgg lu ko gën a ri am moo tax nit ñi nañuy xoolaat bu baax a baax ak seen di ubbi seen i euh, fi may jeexle nag ci bayaan bi mooy ginnaaw lépp lay wax Ousmane Sonko dégg naa dem na Casamance ñu ni dafa wax ni dañoo war a wut monnaie locale monnaie locale mooy lu nit ñi di jokkalante ngir man cee jaay ak jënd mu yem Casamance lu mooy monnaie locale loo xam ni nañuy jëndante ak jaayante. dañ koy wut foofa ngir mu yombal man de mën na maa xam ne bon fois nangul naa ko bonne foi ni yéene ju rafet la ko waxe mënumaa gëmit nii euh, loolu laay nangu man ndax ku ne nag jaay seet noo ko bëgg a jàppe waaye man loolu laa gëm waaye nag Ousmane Sonko foofu erreur de communication ni nga waxee ni am na ñoo àndal ñoo xamante ni bii am na loo xam ne taniwuñ ñi fi nekk nangul ni def nga erreur de communication boo xam ne même bu fekkee ne lu baax nga ci jublu erreur de communication la bu wér wér wér lu tax ndax France googee waa basque même basque bu ñu amee monnaie lokal Kenya soxna Yacine Fall la ko doon leeral bu ñu amee monnaie locale sensibilité bi am Casamance ak la fa nekk ci xiiroog ngaa yoog ñàkk jàmm nga fa nekkoon buñ la fa dee wax ni am nga loo fa bokke noo fa bokke ñu mboolem kuy sab noon boo yëkkatee baat bu toll noonu loolu rek la doon xaar pour exploiter ko bien que sax du am résultat ndax nit ki moom li am solo mooy li muy wax ci biir na nekk dëgg dina sell ci moom rek waaye nag communication dafa am lu laaj ndax boo nee nañ wut monnaie locale ñu ne ku ñuy jiiñ ak ndëmm ngay seeñoo yeeli xale naan séparate la la nangam nangam dafa rebelle la bu fekkee ñu wax loolu même lu baax nga ci jublu laa la wax loolu jëru ko tey li tax ma di la ko leeral mooy Ousmane. benn mbir yow même bu fekkoon ne loolu loolu wax nga ko muy xalaat bu baax itam mënoo ko mënoo ko exécuter parce que nekkoo président ginnaaw nag mënoo koo ko exécuter li gënoon mooy boo amee xalaat ba nga bàyyee ba loola bu la ko yàlla mayee nga exécuter ko waaye ginnaaw yow boo ko waxee te du am te mën na laa indil coow loolu du ko jar loolu it ñi nekk ak yow di la jege war nañ la koo expliquer ci wàllu googu waaw loolu moom erreur la ndax am nañu woon siiw rek nga wax benn baat rek ba juum ci. li ci des nag mooy yéene ji ngay doxee moom ak ni ngay waxee nit ki ku mën a doon rek nit yëg-yëg nga koy gise la ca xol ba ak la ca sell ga luy jóge ci xol ci xol lay dem bis bu jógee ci làmmiñ rek yem ci rek ci làmmiñ lay yem ñi ñu ko jé jéem a exploité itam mën nañ ko jéem a exploité nag pour jéem mu wàññi la dara mais gëm naa ne loolu du am résultat waaye nag lu mat a bàyyi xel na nag ndax ku xam xam ni boo amee foofu ay bokk am loo fay bëgg ñu di leen jiin ñi leen dañoo bëgg nekk ay séparatistes nangam nangam nga ni nañ wut monnaie locale te monnaie locale boobu boo ko waxoon itam wax lay doon rek waaye mënut am ndax euro euro euro euro euro euro leng yi la ko mën a may jërul woon wax waaw jërul woon wax noonu fépp la ñuy wax fu ñu war a waxee rek wax leen war a wax kon yaakaar naa bu ëllëgee itam di bàyyi xel ci mel noonu dana ci baax am te kon bu dul wàññi dara itam kon noo ngi leen di sant leen gërëm jërëjëf Serigne Alassane ñu ngi lay sant ci liggéey bi. di sant Serigne Omar yàlla sant bu baax euh, Cheikh Bachirou euh, sëñ Cheikh euh, ñu koy sant Fall yéen ñëpp ñu nekk ci barab bi di leen ñaanal di sàkku ñëpp ñaan lii ma doon albayaan kon tey man ngeen ko jëfandikoo ci Saxum Touba ñi koy topp itam di laaj wax naa ne foofu mën nañ ko fa am ci Saxum boo duggee ci YouTube di nga ko gisal sa bopp kon jërë ngeen jëf incha allahu rabbi ba. ajjuma ci vingt une ñu ñëw ak yéen ci taarixu yoonu murit ci jaar-jaari cheikhul xadim ak yoonu murit jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما